ulaayika ala hudan min rabbihim wa ulaayika humul muflihun sadaqallaahu al-asiim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wa jacal kalaami rasidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arsida wa sakki lubbi waftaxan rabbi liya fatxan mubinan laa yura li misliya uxayikum بتحية الإسلامية وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki taalibe yi mbokki ñu leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen siyaaral bu baax a baax ginnaaw ba nu ko tàmbalee ci xalifatu général di sëriñ Mahamadul Muntaqa di ko ñaanal mu yegg fi lool te ànd ak wér ak di ko ñaanale noonu xalifa Baay yi sunu maam Cheikh Ibrahima Fall moom tamit muy jàgg fi loolu te ànd ak wér kon nag bi ñu leen nuyoo nuyu boobu gën a sell ci nuyoo yi muy nuyoo islaam boobu ñu wax ñoo ngi fa fas ne tàmbali kon liggéey bi nga xamante ne nii moom la ñuy faral di def ci daara ji saa boo xamante ne nii rek daara ji amal nañu ab daayira ba noppi rek dañ cey toftal ay waxtaani diina yoo xamante ne nii dina amal solo lool ñi nga xamante ne nii ñoo ne ci daara ji waaw waa daayira Safinatoul amaan kon ñoo ngi leen di ziaral bu baax a baax ba tey di jaajëfalaat bu baax ñi nga xamante ne nii ñoo doon ekkati xasida yi ci kuréel yi ñoo ngi leen di jaajëfalaat bu baax a baax di ñaan suñu borom wéral baat yi bu baax ba nen ko yéenee rek suñu borom may leen ko noonu ci barkeb sëriñ bi ndaxte xasiday Seex Ahmadu Bamba Xaadim Rasuul yi dafa nekk xasida yoo xamante ne nii dañu ko nangu lool waaw moo tax képp koo xamante ne nii rek jàpp na xasida yi te sellal ko bu baax a baax dina ko yóbbu foo xamante ne nii euh, ëllëg ci ba ko tàmbalee ci ba sàq ba ci yowmal xiyaamati ba ci ba ajjana rek xasida yi da koy wallu di ko xettali ndaxte Sëriñ Tuubaa xaadalahu laahu maxtaaralahu wax na lu mel noonu waaw ba ba ne wa jaal xurufi ujóoroon baaxiya bilantihe in lil jinaani raaxiya nee na defal sama xuruuf mu nekk ay may yoo xamante ne nii ay ujóor ay may yu bëri yoo xamante ne day des waaye nag ba àjjana rek day dem ba àjjana ilal jinaani raaxiya kon moo tax xasida yu Seex Ahmadu Bamba yi am solo lool kon nañ ko jàppaat bu baax te sellal ko xam naa nag kon loolu dañ doon def ab ubbiku rek kon fas yéenee kon euh, tàbbi ci li nga xamante ne nii mooy suñu tem muy ay teggin loolu lañu indi tey fas yéene ko waxtaanee. kon nag li nga xamante ne nii mooy ay teggin dafa am solo lool ci jaam bi moo tax jaam boo xamante ne nii jullit bi nga xamante ne nii taxaw na teggin yooyu suñu boroom. dina ko may mu àgg ca moom ndaxte sëriñ Tuubaa loolu la wax xam nga ne boo demee ci alxuraanul karim ci suuratu luqmaan suñu boroom maa nga fay wax naan wax sit fi masyika waxdud mina sawtika in ankara la aswaat la sawtul xamir dafa wax ne da ko wax ne ko booy dox nanga nga gàttal sa dox booy wax nanga nga wàcce sa kàddu ndaxte kàddu gi na gën a sib ci kàddu yi mooy kaddu mbaam kon bu ndikkee ci alxuraanul karim dafa mel ni wax na ci lu mel na noonu ba tey xam ngeen ne yonentu bi salallaahu taala alayhi wa sallama suñu borom daan doon na ko wax ne ko saxaaba yi nga xamante ne ñoo àndoon ak moom mooy saxaabatu rasul suñu borom daf leen waxoon ne leen wala tajhar aswaatakum fawqa sawti nabii na ngeen di bu leen ekkati seen kàddu ci kaw mu tiim kàddu yonentu bi sallallahu taala alayhi wa sallama kon loolu nag alxuraan indi ko ci teggin muy lu am solo lool ci jaam bi ba tey xam ngeen ne seydina jibril alayhi salaam ba mu ñëwee ci yonentu bi sallallahu taala alayhi wa sallama di ko wax di ko woosi ca la nga xamante ne nii mooy rañaan ga te àndoon ak alburaax da ko waxoon ne ko jàppal waaw ndaxte dangay wuy ji buur bu mag boo xamante ne nii mooy buuru buur yi muy yaa maalikal mulki jooju sëriñ bi wax kon nag ñu xam ne teggin googu kon dafa am solo lool ci jaam bi ba tey nag Cheikh Ahmadou Bamba Khadim moom tamit indi lañ ci loo xamante ne nii lu doy la ndaxte sëriñ bi dane su ma la bëggee tënkal teggin daal bu fekkee ne teggin daal ab dëkk la yoon ma ca jëm daal nee na su ma la ko bëggee tënk tënkal mooy dangay yërëm ndaw ni nga xamante noonu la ko baayam yërëmee ak ni nga xamante noonu la ko yaayam yërëmee waaw boo ko yërëmee ndaw te tamit nee na ki nga xamante ne nii moo la mag danga koy wekk ki nga xamante ne nii yéen a nga def ko ni sa bopp loo yéene sa bopp nga yéene ko ko loolu la wax ne tarixatul adabi rahmatu saxiir kal abbi wal ummi wa tuwaqirul kabir wa jaal mislika ka nafsika sawa li waji xaaliqi ala kon loolu la sëriñ bi wax ba tey nag yëmu ca dafa wax ne teggin yooyu ci ñaari kër yi muy àdduna alaaxira mooy ngën ji ndàmb waaw mooy ngën ji ndàmb woo fi daare ni xayru kan wa xayru mahtasabihi soo ay si nee na lépp lu doomu aadama bi denc rek nee na teggin moom ci ñaari kër yi teggiin moo ca gën kon moo tax jàmm bi war a taxoog teggin yooyu ba nga xamante ne nii dina mën a egg ci suñu borom subhanahu wa taala suñu borom mën koo gërëm te ngërëmaa ngërëm ngërëmul ngërëmam mag loolee nga xamante ne nii ci la doon gërëm gaay yi yàlla yi kon nag ba tey sëriñ bi yëmu ci dafa ñoo waxal ba tey ca téere ba nga xamante ne ni mooy masaalikul jinaan dafa wax ne axlam na xam ne daal ana laaha naka yàlla fii daaray ni ci ñaari kër yi bi fadlihi subhanahu huwa nooray ni bi anna xayra maa bihi asdadul fata talaasumil adabi xaysuma ata dafa wax ne yow jàmbi bi xam ne daal ci ñaari kër yi daal na xam ne daal teggin daal mooy li nga xamante ne nii mooy li gën ci ñaari kër yi li annahu bihi ra ila rahmaani yasilu abdan ilal jinaani nee na ndax suñu borom subhaanahu wa taala moomu teggin googu noonu boo ci jàppee nee na mooy tax moo lay yóbbu ba àjjana fa kullu man bihi raama usul li xadrillaahi fa xumrun la nabil ba tey mu ne képp koo xamante ni mi ngi sàkku egg ci suñu borom subhaanahu jàppul teggin moomu nee na ab dof la boo xamante ne yowwul mu ne wana taxoo bi annahu kaada yafu yakun sulu say diini fa fatlahu yabin mu ne ba tey borom xam-xam ne dañu wax ne teggin nag dañ koo xaaj ay xaaj waaw mu nekk ay xaaj kon nag wa huwa qismaani la daa daymaani al aadaabu saahiru maa insaani nee na ku ñuy wax imaam daymaan nee na teggin dafa am saahir am baatin wal adabu baatili ma rabbil wara wayan bawul baatili ma xat sahara nee na teggin yee xamante ne nii mooy teggin yi nëbbu mooy sa diggante ak sa borom waaye teggin yee xamante ne nii mooy feeñ mooy sa diggante ak mbindeef yi moo tax mu ne faadamun saahiri axsanul xulux wa misluhul xayaatu fastajib tafuux mu ne nag bi ci njëkk nag ci teggin yi nga xamante ne mooy teggini feeñ mooy da rafet jukko waaw axsunul xulux kon da rafet jukko boobu moo ci njëkk waa kasa tayaamunun wa tasmiya ay fi mahallin kilayhima fadriya ba tey mu ne ba xamante ni moo tega ca teggin boobu mooy tayaamun ngay wax di wax bismillah lépp loo xamante ne nii yaa ngi koy tàmbali rek da nga koo da a tàmbali di wax bismillah ba tey yemut ci loolu mu wax ne war adabul akli misluhu siwaak muwakkadan inda salaatika fahaat ba tey mu ne teggini lekk xam nga ne lekk dafa am ay teggiin ba tey yëmu ca mu ne jaam bi dafa war di soccu soccu dafa bokk ci teggiin nga xamante ni bala ngaa jàpp soo dee julli sax bala ngaa jàpp dangaa war a soccu loolu lay wax ne ba tey kasaaka musaafahatu wa tilaawa ifsaaku salaam wa ak li nga xamante ne ni mooy delloo am nuyoo bu fekkee ne jàmm ñëw na la ni la aleykum nuyu la nee na delloo delloo nuyoo boobu dafa bokk ci teggiin ndax delloo nuyoo boobu farata la loolu moo tax mu wax loolu ifsaaku salaam وكسا إيادة المريض ورد كسال ورد كالسلام قص خريدي بدأ يمنع سيتو فيبر أجي فيبر nga dem seetu ko loolu dafa bokk ci teggin kon képp ko xamante ne ni dafa feebar rek nga dem seetu ko loolu lu am solo la ba tey mu ne wa hamdu aatisin wa tasmiitun wa yurat wa saddu fammin li tasaawubin bi yat ba tey dafa wax ne képp koo xamante ne nii dafa tisli rek bu waxee alhamdulilahi danga ko wax a war a wax yarhamukallahu waaw loolu lañ digal dafa lool tamit dafa bokk ci ay teggin ak koo xamante ne nii yaa ngi bébbuli boo dee bébbuli da ngay jël sa loxo teg ko ci sa gémmiñ wa kasaaka fitratu asti astisaanu xabla duhooli ayuhal ixwaanu mu ne ba tey defaru defaru nag lim ci jublu mooy bépp karaw boo xamante ne nii dafa nëbbu rek dañoo bëgg nga koy faral di wat di ko defaral kon loolu la si jublu kon mu ne karaw yi nga xamante nëbbu nu rek na koy fexe di ko defar di ko wat bu baax a baax loolu ne moo tax mu ne ci lu jiitu nag loolu yéen samay mbokk maa ngi leen di xamal loolu wa minhu aful mar'i aman salama wa misluhu ixtaa'uhu man harama ba tey dafa wax ne képp koo xamante ne laa tooñ rek nga jéggal ko te yàlla tax kon loolu bokk na ci teggin képp koo xamante tooñ na la rek boo xam ne jéggal te yàlla tax nga jéggal ko te yàlla tax wasilatun li kulli saxsin xataa wal birru aydan fante bi wa tabia ba tey bokk na ci teggin ngay jokk ak mbokk silatu bokk jokk na ci teggin ngay jokk ak mbokk ويجبان يا, يا أخي في رحيم ووالد ولو walaw li sirkin yentami ba tey mu ne war na nag lool ci yow sama mbokk war na lool ngay yërëm sañaari waajur donte ñoo xamante sa ñaari yooyu donte nag ay yéefar lañu donte dañu doon ñuy bokkaale war na lool ngeen di yërëm waaw ndaxte alxuraanul karim dafa wax ne bil waalidayni ixsaanan wala taqun lahuma uffin wala tanharhuma kon sa ñaari waajur waroo di ekkati sa kàddu muy jëm ca kaw sa ñaari waajur wa minhu tarbiyatul awlaada li kay yanaaluhu bahdaha rashada bokk na ci teggiin ba tey mu ne nga yar xale yi xale yi ñi nga xamante ne mooy njaboot gi nga yar leen loolu dafa bokk ci teggiin mu ne nag li nga xamante nii loolu lu war la yow mi nga xamante ni yaa bëgg nga ak njub daal war na lool ngay yar xale yi mu ne sëriñ bi nag mooy wax fii wax yooyu moo doon wax yépp da doon nettali waxi ay imaam Daymaani xeet yu mel noonu ay borom xam-xam yi nga xamante ni ñoo ko fa jiitu woon ñoom loolu nettali seen i wax kon nag dafa waxoon ne saa bu ma nee xultu rek man maay wax moo tax mu ne xultu wa minhu lutfun bi saxiir wa misluhu tabjilu lil kabir sëriñ bi dafa wax ne nag moom li mu wax ci teggin mooy na ngay yërëm ndaw mooy lim lay waxoon ca téere boobu béy yin tàmbale woon mu wax ca nax jul xadaayil xaaji na yërëm ndaw te ngay weg mag wa jaal mislika ka nafsika sawa wa xayri si mimma astixaamatal xawa ba tey loolu la waxoon mu ne kon boo yërëmee ndaw màggal mag mag nga weg ko ki ki nga xamante ne yéen a maase danga koy def ni sa bopp hmm. waaw kon nag xam naa kon foofu lañuy ñuy fas yéene wàccee kaddu yi ndax waxtu yi moo ngi bëgg mat xanaa nag fi ñuy wàccee kaddu yi dañ ñoo waxoon ginnaaw boo xamante ne nii yaatal nañu thème bi ñu indiwoon woon ñoo waxoon ñu soññee tuuti ci lu jëm ci siyaar bi ak joxe addiyee bi ñu wàccee fa sunu kaddu ndaxte xam ngeen ne sëriñ bi dafa waxoon ne sur man tuhibbu wa in sattat bi ka daar wa aalimin dunihi suhlun wa awaar nee na na nga siyaare ki nga bëgg waaw donte nag fa mu nekk kër gi dafa sori lool na ko siyaare donte nag kër sori na na ko siyaare ndax dina loolu dafa doon lu am solo mu ne laa yem na annaka bu'dun min siyaaratihi inal muhibba liman yahwa sawaaru nee na mënut a ñàkk nag ki sopp nit mun ta ñàkk mu dem di ko siyaare ji ki nga bëgg daal na nga ko so na ko siyaare ji donte nag fa mu nekk daa sori lool donte fa mu fi ngay jaar yoon wi ngay jaar di dem ci kook nga bëgg kooku nga sopp dafa am ay xur ak ay montagne ak lépp rek nee na du tee ki bëgg ka mu bëgg du tee mu dem ziyaare ji ko xam xam naa kon li ñuy indi rek ci njariñul xaddiya ngir ñu soññee ko ñee xamante ne ni ñooy joxe addiya ndax da sëriñ bi jox ko addiya dafay xettali murit bi tey ak ëllëg xam ngeen ne dafa am leetar boo xamante ne nii Cheikh Mouhamadul Moustapha moo ko bindoon sëriñ bi di ko laaj nag njariñal xaddiya kon leetar boobu la ñuy indi rek daal di wàcc suñ kàddu mu ne sawaabul hadiyati sawaabul hadiyati tajsibul murid ila saadati wa ulowil maqaamaati dafa wax ne sëriñ tubaa xaadal lahu laahu maxtaara lahu dafa wax ne hadiya daal dafay jëmale murid bi ci ak texe waaye nag yëmu ca da koy yóbbu ci ay maqaama yu kawe wa kasratul maali wa tuulil umri wa ma wa mahabbati naasi ilayhi ba tey yëmu ca nag nee na xaddiya ki nga xamante ne moo koy joxe dafay bari alal waaw wa kasratil maali ba tey dafay guddal ak dund ba tey yëmu ca ki joxe addiya nit ñi dañ koy sopp moo tax mu ne wa ak aqraani wala wala adami ruyatil malakayni ba tey kiy joxe addiya nee na day tax mu jiitu ak maasam ki joxe addiya day jiitu ak maasam wa adamu ruyatil nii ak ñàkk laajug ñaari bàmmeel yo ñaari malaayka yooyu nga xamante ne ñoo nekk ci biir bàmmeel nga xamante ne ñu raglu lañ ni ko sëriñ Samba radiyallahu taala anhu di waxee ñaari malaayka yooyu nee na sëriñ bi nee na ki joxe addiya ñoom duñ duñ la laaj ci bàmmeel wa sur ba tey yëmu ca nag mu ne wa suratil jawaari ala siraati wa duxoolil jannati bi xayri xisaabin mu ne ki joxe addiya buy jéggi siraat dafay gaaw lool waaye yëmu ca ki nga xamante ne nii day joxe addiya nee na dina dugg ajjana ci lulu xisaab te xisaab dafa doon loo xamante ne nii lu lu yéeme la lu doy waar ndax dërëm boo xamante ne nii foo jëlee ab dërëm ak foo ko dugal ñu la koy laaj lu mu ndaw ndaw nga ne ko sëriñ bi waxe ca tasawudu si xaar wa yaqaawul xisaas bayna jamaa bayna xanaa li adlin sama xam nga lool lu doy waar la kon mu ne la xaddiyee day tax ñu day tax murid bi mañ koo xisaab kon war naa murid bi war naa góorgóorluwaat baax ci joxe addiya wa an laa yaraa fitnatal xabri wa yanju min akli du min akli duudi fii xabri ba tey mu ne kii jox addiya du day du ñàkk maanaam bu demee ci bàmmeel du fa gis fitna te sax yaa nga xamante ne ñoo nekk ci biir bàmmeel nee na sax yi duñ ko lekk wa xayri zalika wa fi hadiyati manaafiun laa taktubu fi aqlaami mu ne ba tey lekk na ci loolu nag mu ne njariñul hadiya li ca nekk ci njariñul addiya ay big mënu koo bind wala tuntaxu lisaan aw làmmeñ mënu ko wax nee na nag su ma la bëggee tënkal njariñul xadiya li nag njariñu xadiya nee na big mënu koo bind làmmeñ mënu koo wax mu ne li anna xadiyati waaxidatin tuj sa saahibaha bi isnay asara alfan wa huwa aqallu fiha wa aksaru ba tey mu ne xadiya benn xadiya boo joxe nee na dinañ ko fay fukki junni ak ñaar te leen loolu moo ca gën a new daalika laa yaxlamuhu ilallaahi malik malikal mulki azza wa jalla nee na nag li nga xamante ne moo nekk njariñu addiya daal suñu borom subhanahu wa taala moom ma xamante ne moo màgg te tedd lool nee na li nekk njariñu addiya moom rek moo ko xam kon nag leetar boobu la sëriñ Mahamadul Moustapha bindoon ku tedd ki di Seexul Ahmadu Bamba Xaadim Rasuul di sàkku ci moom mu wax ko njariñul addiya euh, sëriñ bi tontu ko loolu kon nag dañoo waxoon nañu nañ soññi waat ci joxe addiya ndax murid yi war nañoo góorgóorluwaat bu baax ci joxe addiya ji euh, ñu mën a dem ji ziyaare bi nga xamante ñoo ngi koy waajal kon ñu tënk foofu di wax ne ñoo ngi tub bu baax a baax ci kàddu yi lépp loo xamante dëgg na ci rek ñu koy tub bu baax di xam ne doomu aadama moo lottu rek wa xuliqal insaana daif li ci jub nañu sant suñu borom subhanahu wa taala ak xaadim rasul yaakaari jaam ñi subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin